Moussa Thiam maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Moussa Thiam nga nekk responsable national de la jeunesse du mouvement Agir alliance générationnelle pour les intérêts de la République euh, déjà jox mhm. nañ njiitu réew Sénégal rapport bi nga xam ne moo tënk conclusion euh, yi ñu amaloon ci euh, assises yi ngir daal di réformer justice sénégalaise ñu gis aussi président mu ngi hésité ci génn bi nga xam ne ñu ngi ko doon xaar mu génn ko ci conseil supérieur de la magistrature gisee. waaw euh, tout d'abord may wax ni le président de la république bi nga xamante mooy le président Bassirou Diomaye Faye te quelqu'un bi nga xamante ba tey ba tey assumeegul ses rôles de président te comme quoi comme ni ko président Thierno Bocoum waxee la fois passée c'est un président auprès du premier ministre tout mi ngi def ay voyage am jëlagul benn décision maintenant ñoom ñoo ko digoon askan wi ñoom ñoo ni woon bu ñu fexee ba falu dinañ fexe ba la magistrature président lu xam dootu nañu nañu vraiment honoré seen i promesse ndax loolu la sénégalais yi di xaar ci ñoom naam tas nañu yaakaaru sénégalais yi ci yu bëree baree bari ndax waxoon nañu fii ne bu ñu faloo dinañu fexe ba ba nomination yi dañ koy def euh, appel à la candidature pourage ba tey kenn gisu ko gis nañu Ousmane ko moom en tant que premier ministre ba tey xamul rôle premier ministre wala boog bu ko xamee ba tey assumé ko kon donc comme ñoom ñoo ko diggoon sénégalais yi nañ ko def rek ñooñu woon bu ñu fexee ba falu président loxoom dootul joxe jote ci conseil supérieur de la magistrature nañ ko def bu ñu tas yaakaaru sénégalais yi ñoom ñoo diggoon sénégalais yi un système un système qui doit changer nañ nañ nañ leen ko nañ leen ko nañ leen ko nañ leen ko defal. Mhm. ndax loolu la ñuy xaat est-ce que yow optimiste nga ci réforme yi ñu wax dinañ ko def parce que bu ñu déggee président nee na yeneen ponk yi warul poser problème euh, dinañ ko matérialiser est-ce que yow am nga si yaakaar. ndeyku ma boo bëggee dégg régime bi xaaruma dara lu positif ci ndax gis naa ni mënuñu xamuñu télé nañu amul dara lu positif loo xam ne dama koy xaar ci ñoom lu ñu dig sénégalais yi ay naxee mbaay la ndax ut na loolu lañu mën populisme la ñu mën wala amateurisme ku ànd ak ñoom baax nga ku leen contre benn yotaa ñu taxaw xat nga sosal la vraiment ci côté boobu lañ gën a mën liggéey wala wala wala wala jooyanti si réew yi Mhm. Euh, beneen ponk aussi bàyyeekoo ci ci ci réforme yooyu le euh, nee nañ euh, nañu taxawal benn cour constitutionnel à la place du conseil constitutionnel loo si xalaat. non xam nga xam nga conseil constitutionnel moom. ñoom ñoom dañ koy xat saa boo saa bu ñu yaakaaree ne xaw naa waroo ak ñoom léegi nag vraiment changer institution bi yooyu jaru ko fi. y a y a le conseil constitutionnel qui est là depuis très longtemps. te gisuñu ma ni def na fi benn faay ñi fa nekk ay nit yu faral la nañ leen bàyyi ñu déroulé nañ leen bàyyi ñu déroulé su fekkee y a des gens qui sont au conseil constitutionnel te dañ leen a contre mais loolu y a la séparation des pouvoirs loolu ça n'a rien à voir ak ñoom seen seen seen rôle li ñuy def nañu bàyyi ay changé ay pour tur bi rek moo nar a changé pour constitutionnel conseil constitutionnel mais li ñu doon liggéey dara du ci changé ñu leen ci loolu ci ñuy ay tur sénégalais yi dañoo bëgg beneen dundin ñoo ko digoon sénégalais yi ñoom ñoo ni woon temps de grâce bi ñu leen may sax dafa ëpp ndax Ousmane Sonko wax na fi ne bu ngeen fi nommé président bu leen ko mayati temps de grâce seen tànk tànkam loolu yëpp moom moo ko soxoon kon donc nañu assumer nañuy honoré seen yi parole loolu la sénégalais yi di xaar ci ñoom dañu bàyyi seen caaxaan yi amateurisme bii ñu nekkee nii nañ ci jóg Euh, beneen ponko si am solo di euh, fan yi gis nga ni euh, du régime bi dugg na ci marché yi ñu ngi dégger déguerpir marchand commerçant yi nekk si marché yi parce que jàpp nañu ni ñu occupé marché yi ce n'est pas normal naka nga gisee mbir yooyu. waaw ndéku ba man moom comme ni ma la ko waxalee occupation anarchique moom dama koy contre ndax damaa bëgg réew saa suñ ko bëggee joxante il faut que organisation. mais vraiment no nommé wuñu dañoo nommé président pour mu créer un emploi mais nommé wuñu pour mu xaj jeunesse bi seen liggéey marchand ambulant yi nekkoon Colobane ay ay ay góorgóorlu lañu woon marchand ambulant dafa metti ndax ñi ngay gis ñuy jaay noonu mat même même produit yi ñuy yor di ko jaay ñu ko dañuy dem ci groupe yi ñu jox leen ñu ñëw taxawaat ci tali bi di jaay kon donc nañ leen yërëm jéem leen a cadré ñu jaay ñu liggéey beneen bi may wax mooy yow nooy mën a fekkee nit mu nekk ci béréb di fa liggéey nga ñëw di ko déguerpir te wutoo foo ko dugal man j'aurais préféré à ce ñu créé benn centre commercial woo woo woo woo maintenant ambulant yi ci waxtaan ne leen créé nañ benn centre commercial ku fa bëgg cantine da ngay ñëw waxtaan joxe sa caution li nga am ñu dimbali la nga am cantine noonu la ñuy créer emploi noonu la ñuy yoree réew mais yor réew kenn du ko yor ak fugg ñëw di dégager ak ñëw di bale xaaruñu woon loolu ci ñoom ñu lool ci ñoom d'ailleurs sax ñoom Euh, loolu loolu moom premier ministre man daf maa jaaxal ndax comment on peut chef du gouvernement nga ni yow le ministre de l'intérieur dafa génne circulaire pour déguerpir lu toll ay mataan la yow nga ni yëgoo ko ba ci président moo la ko wax nga war a xam ni kon war ngaa dem toog sa bureau liggéey te nga bàyyi sangaabalu bi nga nekkee ci ay Colobane ak fu ne nga dem fa taxaw di dem Grand Théâtre di di concurrence ay Wally Seck ak ay Sidi Diop voilà beneen ponk bu am euh, solo di euh, am na wàññi nañ dund gi un peu ci yenn denrées yi comme ceeb beeg diwlin beeg mburu mi ciment bi ak euh, sucre bi naka nga ko apprécier. waaw xam nga xam nga xam nga man moom su ma ànduleeg nit sax su defee bu posé benn acte bu baax vraiment dama koy saluer wàññi nañu ceeb bi wàññi nañu dund gi mais ñi ngi leen di xaar ak ñu gën koo wàññi ndax loolu lañu promettre woon sénégalais yi ñoom dañoo waxoon sénégalais yi dinañ fexe ba ni ba denrée de première nécessité Sénégal gën koo yomb yeneen pays africains yëpp kon donc ñu ngi leen di xaar ci loolu ñu ngi koy saluer nag acte bi ñu posé euh, vraiment ñun ay responsable de famille lañu dañuy jënd ravitaillement kon bu ñu gisee wàññi googu am ci mënuñu def lu dul rafetlu ko te di leen xaar à ce ñu gën koo wàññi ndax ñoom ñoo ko promettre woon Sénégalais yi Mhm. Euh, aussi euh, ñu gis ni am na mbir mu xew ca Kaolack ci baccalauréat deux mille vingt quatre bi soixante quatre candidats la ñu exclure parce que dañu indaale woon euh, seen téléphone portable moonte day jàppuñ leen ñu tricher naka nga gisee mbir moomu lay jur coow. waa xam nga xam nga usage usage téléphone portable moom dañ koo tere. kon donc foofu dama dama am ñaari ay daan yi may teg d'abord way jur ndax sa doom buy génn di def baccalauréat lu examen bu toll ni baccalauréat war nga xool vraiment ndax yor na yor d'abord am na li mu war a am yëpp loo xam ne nécessité yi nga yi mu war a defee examen mais mais quand même nga nga nga laaj ko ne ko ndax mbaa yóbbuwaale woo sa téléphone puisque dañ koy tere loolu fotu fotu parent parent yi la mais de l'autre côté également comme yow yaa ngi def examen jàng nga neuf mois vraiment man waruma woon xaar ak détail bu mel ni usage téléphone portable di la yàqal sa examen ñaan ku fotee dañ koy sanctionné nañ leen sanctionné puisque comme dañ ko tere te ñoom xamoon ni dañ ko tere ñu def ko vraiment nañ leen sanctionné quoi vraiment ñaawlu maa ngi koy ñaawlu kenn bëggul nag. Euh, ah sanctionné nañ euh, Moussa dañ leen a sanctionné ba noppi moo tax euh, dañu dakkal bac bi ñenn ñi jàpp ne sanction bi dafa sévère trop comme que jàppuñ leen ñu tricher mënoon nañ leen baal ba beneen daal. non xam nga lu tricherie moom kenn du ci baal ni que que muy ci côté jàng mooy ci beneen côté tricherie kenn du ci baal nit naam moom ñi ñi ñi maanaam ñi yàq yàqal nañu ñeneen ñi mais noonu rek la mënoon demee puisque dañ leen a jàpp ñuy kii ay ay ay ay épreuve yu fruité yooyu am ci kon mënuñu def lu dul sanctionner leen ba pare aussi sensibiliser leen message euh, message bi nga xamante ni moo war a jàll mooy bi war a jóge ci ci ci ci le dem ci les élèves nañ koy jàllale usage téléphone portable dañ koy yi wax jooju jar na sax ñu def ko ay publicité xale yi xam ci même ñi jotagul classe examen xam ni ñoom buñ ci tollee duñ bu ñu waree defi examen duñ yóbbu seen seen téléphone vraiment di waa que ni message bi euh, ni mu waroon jàllee jàlleewul noonu. Mhm. Euh, beneen ponk aussi euh, bu am solo mooy cent jours yi nga xam ne président Diomaye def na ko ci bopp réewu Sénégal ban bilan nga siy téere positif wala négatif. le bilan n'est pas encore sama. fii d' ailleurs mënuñu wax sax bilan ndax ku posé ak acte mënoo xool ba xam baax na wala baax c'est-à-dire ñii dañoo posé ak ñii dañoo posé ak ay waxu kasaw kasaw la ba le président Diomaye ba tey taxawul sax jël une décision dafa mel ni liñ leen yéen dafa diis ñii dafa mel ni attanuñu pouvoir dañoo xaw ma dañoo abusé ci pouvoir bi xaw ma dañ koo attanul Ousmane Sonko mi nga xamante ni moo waroon nekk ci côté président di ko di ko di ko dimbali ci ay tâche gis ngeen ko. taxaw ci offre yi ak ak ak ak amateurisme la gën a tal kat sa liggéey ñii daal defaguñ fi dara ci réew mi li li ñu diggoon sénégalais yëpp honoré wuñu benn yoon seen yi promesse nax nañu sénégalais yi ba ñu jox leen réew mi dem jaay leen benn projet boo xamante ni c'était une feuille vierge un projet qui n'a jamais existé FMI moo leen dàq na leen dem leen continuer le PAC 3 du PSE ndax projet bi ngeen doon jaay sénégalais yi amul amuñu dara luñ pré amuñu mënuñoo dérouler ndax amuñu une feuille de route bu ñu dérouler posé guñu benn acte fi mu toll cent jours à la tête de ce pays vraiment posé guñu benn du loolu lañ doon xaar voilà euh, euh, gis nga coow li bari na par rapport ak assemblée nationale njiitu euh, gouvernement bi premier ministre ba léegi nangoogul dem def déclaration de politique générale ndax nee na faaw ñu soppi règlement intérieur bi coow li bari ñenn ñu aussi ñu ngi laam-laamee tas bi ñu bëgg a tas assemblée nationale noo ko gisee. Ndeye Comba Ousmane Sonko na bàyyi nax boppam ak nax sénégalais yi règlement intérieur assemblée nationale n'a rien à voir ak déclaration de politique générale ñaari choses yu ñu war a dissocier la règlement intérieur ça concerne les députés article cinquante cinq de la constitution moom moo ni le premier na nommé doit faire sa déclaration générale sa déclaration de politique générale devant l'assemblée nationale na dem defi ko taxawee nekk député di jàkkaarloo ministre yi di leen ko bàcc na dem ñu ñu posé ko ay question bu amee lu mu répondre mu répondre aussi li muy wax du alibi dañoo war a changer règlement intérieur de l'Assemblée moom loolu yoonam nekku fi c'est un premier ministre nommé il doit faire sa déclaration de politique générale na dem defi ko lu muy wax du alibi ça n'a rien à voir avec le changement du règlement intérieur de l'Assemblée nationale maintenant su fekkee nag daa amul argument mën na taxaw wax ko solennellement devant les Sénégalais ñu comprendre ko mais di wut ay alibi yoo xam tegul ci benn dëgg dégg naa ko sax mu naan waaw xaw ma majorité assemblée amul majorité assemblée mais loolu ça n'a rien à voir de politique générale mooy moom mu dem assemblée national wax teg def fa teg fa une wax ni mu war a dérouler xool per mu xool perspective yi xool li mu diggee woon ba xam mi ngi commencé eh, di di marcher les premiers loolu rek la nga dem assumer ses responsabilités def ko mais li muy def nii amul njëriñ du lii la yi doon xaar ci moom daf na yaakaaru Sénégal. Mm. Euh, Moussa Thiam en tout cas maa ngi lay remercier ci sa disponibilité. maa ngi maa ngi lay remercier bu baax yow tamit dégg nga ndax permettre nga ma vraiment ma génn mën a wax sama xalaat ci réew mi. Mm-hmm. yow moom sama sama xarit nga <laughs> voilà. dëgg dëgg la euh, may fàttali ni Moussa Thiam yow yaay responsable national de la jeunesse du mouvement Agir alliance générationnelle pour les intérêts de la République jërëjëf merci Moussa Thiam.